ñëpp xam nañ ni euh, depuis le premier novembre 2020 réew mi dafa dugg ci Benno Bokk Yaakaar le premier novembre 2020 ba novembre 2021 amul benn réunion wala benn prise de contact bu ñu am ak ñi nga xam ne ñoom ñooy la les responsables benn Bokk Yaakaar Guédiawaye ki nga xam ni moom mooy Aliou di coordonnateur boobu musul wootee réunion mësul convier également waa réew mi ci lenn ñu jàpp ni nag crise de personnalité moom moo am géejawaay parce que li li tax crise de personnalité moom géejawaay mooy bu fekkee ni dañu jëm ci élection coalition Benno Bokk Yaakaar nekk fi li war mooy le coordonnateur communal woo ki nga xam ne moom mooy coordonnateur réew mi Gounass laaj ko lan lay gisee investiture yi deful loolu daf ñu woo ne ñu am ñu woon sa numéro benn ñaareel bi mu ne ñu Aliou moo tax moo ne naa leen woo ñetteel bi mu ne suñu coordonnateur dama bëgg nga indil ma sa ay dossier fu ñu dugal ci liste yi suñu coordonnateur ci matam ni ko réew mi entité la boo xam ne nii am na femme am na jeune am na cadre am na ay charge li ñu gën a mooy nga ñëw ñu toog ñu xool ñi nga xam ne ñoom ñooy ay cadre nekk ay ndaw ñoo xam ne nii dañu nekk ci réew mi te mën na indil gox bi njariñ ñu imposer la ko pour nga dugal leen ci liste yi ginnaaw si loolu euh, le maire d'accordul ba yàlla def ñoom ñu defal seen liste sans le parti réew mi ñun nag ay ndaw lañ dañuy attirer attention ki nga xam ne moom mooy Aliou Sall parce que Aliou Sall dafa tàmm def loo xam ne nii fii Gunaas pour waa Gunaas moom euh, ay bàyyi ma ne leen jàppee parce que ki fi nekkoon maire bu ñu ko fàttalikoo muy Cheikh Sarr Gunaas la dëkkoon fexe na ba jël ko def ko muy booyam ki fi nekk maire tey di béy di ba waa Gunaas jël seen lépp dénk ko moom dafa jël léppam dénk ko Aliou Sall te ñun ñu jàpp ni. bu fekkee ne da nga nekk li nekk maire ci ci gox waratoo xool xarit waratoo xool àndandoo mais danga war a xool uniquement li nga xam ne moom mooy intérêt waa gox bi. loolu nag dañ koy ñaawlu du ñu yem nag ci ñaawlu ko parce que ñun ay ndaw lañu xam nañu naka la xeexee xam nañu fan la ñuy xeexee xam nañu naka la ñuy xeexee ba ñoom ñu jóge fi. parce que ñun dañ jàpp ni bu fekkee ni Aliou Sall mën naa manipuler waa Benno Bokk Yaakaar def leen ay booy. ñun waa réew mi loolu duñ ko accepté ànd bi dafay mën a ànd dafay mën a nekk ànd nawle ànd joxante cër ànd joxante respect pour ñu mën a jëm fi ñu jëm mais comme moom deful loolu ñu ngi koy xaar si bi benn réew mi dina boycotté liste Benno Bokk Yaakaar te mën nañu sax nekkul liste Benno Bokk Yaakaar mais liste APR la parce que ñu nekk ci liste gouvernance bi yëpp boo leen xoolee ay xaritu maire bi lañ ay ay ay ay ay ay mboxam lañ ay jabaatam lañ ñu jàpp ni loolu nekkul loo xam ni moom mooy doxal coalition ñuy wax ni Aliou Sall na xam ni le 23 juin ci 18 na préparé moom ak Baydi Ba ñu tax seen bagage jóge fi parce que aussi du ñuy accepté mënuñu koo bañ jëmb di ko nangu tey ñoo nekkoon farouche opposant parce que kuy wut maire bu incompétent kuy wut maire boo xam ne ni xamul fu muy taxaw boo ñëwee Gunaas da ko fay gis ñun am ñu benn infrastructure de base ci wàllu neuf domaines de compétence amul dara la fi béy di ba def amul dara kon tey laaj ñu sensibiliser nit ñi mais yàlla sax dogal na jeunes yi ñoom taxaw nañ ni béy di ba ñu ko falaat loolu la femme yi wax man je crois que affaire yi leer naa pare li ci des rek mooy le 23 juin ci ngoon nañu bàyyi seen bopp. te xam ni ñoom dinañ fi jógee moom ak Aliou Sall bi nga xam ni jàppewuñu leen lenn lu dul seen booy wala ñi nga xam ni dañu leen manipuler tout le temps ñu leen wax ni réew mi Gounass discipline de parti moo taxoon discipline de parti moo taxoon ñu toog di xaar lan la président di wax pourtant constat contesté wuñu li nga xam ne moom la ñu jiitu mu wax mais li ñu contesté mooy Aliou Sall na bàyyi di manipuler maire bi nga xam ni moo fi nekk te def ñu ñun ay nawle parce que moom yaakaar na ni élection bu ñëwee muy ni xaas bu bari tuur ko ci askan bi askan bi topp ko. loolu nag changé na di ko changé nag mooy y a des jeunes yoo xam ne dañu conscient dañu taxaw pour seen gox xool ñu intérêt nekk ñu aussi ay politiciens alimentaires parce que réew mi ku fi nekk ku nekk ci réew mi fii nekkoo un politicien alimentaire da nga am métier di liggéey di yor sa kër. loolu dama bëgg mu leer nañ loolu nag. loolu moo nekk ci bépp doomu Gounass léegi benn doomu Gounass tey étudiant yaa ngi nii ku ci soxla bourse da ngay dem benn commune ñaan ñaani ko fa étudiant yaa ngi nii ku ci soxla bourse da ngay génn Gounass dem wuti ci benn commune tout ça normal tey femme yaa ngi nii man damay génn partout au Sénégal dem ci foire yi amul benn femme entrepreneur boo xam ni dafa daan naan man Gounass laa dëkk pour man nag loolu dafa bokk ci neuf domaines de compétence yoo xam ne nii moom da ko war a bàyyi xel maintenant comme bàyyi ko xel ñun dañoo jël suñu ay responsabilité taxaw am nañu disposition créer benn quartier général parce que lu mu ko jaral pour mu faluwaat fii moom Aliou Sall ak Baydi Ba ñun waa réew mi dinañ jaral lu ko ëpp pour ñu abal ñu parce que l'incompétence aussi duñu ko accepté li ma fi may terminé mooy ku nekk xam na ni Gounass dafa enclavé ci wàllu infrastructure ci wàllu loisir ci wàllu culture tey Gunaas amul dara loo fiy ñëw nga ne gis naa ko ci mu yéem la c'est comme si que mag ñi fi nekkoon année 60 tey bu ñu yeewaatee même Gunaas bi lañ fi fekk et c'est déplorable dañu war a changer maire ut ay maire yoo xam ni nii vraiment askan bi ñoo leen koy tànnal mais pas que Aliou Sall jóge fële ak ay xaalisam pour tànnal ko tànnal ñu maire loolu moom dootu fi mën a am may jeexalee rek euh, di remercier mais aussi di remercier ñi nga xam ni ñoom ñooy ay chefs religieux fii mais di attirer attention également ki nga xam ni moom mooy fii chef chef religieux ñu ñëpp ñu naw ko respecté ko jox ko cër topp ko di déglu xaatam mooy Cheikh Abdou Aziz Ndiaye mu nekk koo xam ne nii kenn mënul tabax Gounass te te doo ko ci boole dañ koy ñaan élection yi na ci maandu parce que investir nañ ko 2014 def ko ci liste yi jox ko commission religieuse waa ji ñëw nangu commission bi tey interne taxawaat na mu dugg ko ci liste bi ñu ngi koy lancé appel ne ko seex bi dañ lay ñaan élection yi nga maandu nga seetaan ñu ak Bayrou Ba ñu jëlee ko fi. benn bi ci des aussi ñu ngi attiré attention yi nga xam ni ay transfert lañ dëkk ñu Gunaas bëgg ñoo faral suñu maire ngir yàlla jàmm kese la ñuy ñaan mooy ku ci nekk fi nga dëkk te dëkkoo Gunaas toog fa nga fal sa maire ba fa nekk nga bàyyi ñun waa Gunaas. ñu xool ki ñu gënal tànn ko mu nekk suba suñu maire te Béliba bii du ci bokk Aliou Sall du ci bokk lu mu leen jaral nag pour ñu faluwaat ñu daañu jaral lu ko ëpp pour ñu dégager fi mooy problème mu liste Médina Gounass Benno Bokk Yaakaar ak réew mi ñun réew mi ñun bokkuñu Benno Bokk Yaakaar tey bokkuñu Benno Yaakaar ëllëg bokkuñu ci mburu mi ak soow mi bokkuñu tamit ñi nga xam ne dañ koy suukar ba mu saf ñu ne dañ koy naan ñun naanuñu dañuy tuur waaw ah, leneen li si topp nag mooy dama bëggoon ñëw ci commune de Gounass ñun dañoo ñàkk chance ba nga xam ne ma chance moo tax yàlla indi ñu fi Beydi Ba ndax bi mu njëkkee am première mandat man mii maa nekkoon deuxième sur la suñu liste commune man bi bi ñu xamee ne moom gagné na man maa njëkk a dem félicité ko ne ko dañuy ànd ak yow pour liggéey Gounass ndax li fi nekkoon jógee na fi moom ñu amoon si moom yaakaar ndax li mu nekk ndaw si kaw loolu nag baydi Ba dafa jaawale Euh, commune euh, mairie Médina Gounass ak ndonnoo famille Ba dafa yaakaar ne moom moo ko moom lu ko neex la fiy def mairie bi comme këram ku ko neex recevoir ku ko neex doo recevoir waa APR une partie sax juboowul ak ñoom réew mi nag moom la mënul digérer bu yaakaare ne nag mun nañoo partager ñun réew mi ba nga xam ne dañuy topp si ginnaam ndax jéem na ko ci xudur jàllul mu bugg ko jëm ci Moussa jàllul mu jéem a woo yeneen jeunes yi jàllul loolu moo lay won ne ñun parti réew mi Idrissa Seck dafa am lu mu def ci ñun dañu ànd ak koo xam ne un homme responsable koo xam ne yàlla moo ko may li nekk ci moom kon donc ñu dañoo am formation politique am dignité xam li ñu bëgg mooy lan xam ne moom mun nañu jàllale suñu réew ëllëg fi ñu soxla ñu bañ a seetaan bu ëllëgee moom si wàllu boppam li ñu daloon ci Cheikh Anta Diop dal ñu si Mamadou Dia mu dal ñu si président Idrissa Seck ndax diabolisation yi de un leneen li si topp nag mooy Beydi Ba dafa nekk maire boo xam ne amul benn élégance Baïdy Ba amul benn élégance Aliou Sall waxuma ay waxam moom mooy baayam lu mu ko def loolu rek loolu lay def Baïdy Ba ci boppam xamul lan mooy paat Baïdy Ba xamul lan mooy commune de Gounass maîtriser wul commune de Médina Gounass man mii di wax ak yéen je suis délégué de quartier depuis 2017 moom moo yónnee pour ñu fal ma bi ma sama waa koñ 176 personnes ñoo ma fal sama quartier muy quartier Médina Gounass Roi Baudouin bay di ba demaat ba si digg bi am lu mu ciy ragal naan celle-là elle est opposante elle est réewmiste kon donc du ma ko fal te man maa nekkoon quatrième sur la list bi ñu yóbbu si maire bi pour ma mën a nekk délégué de quartier ndax sama quartier ñoo ma fal sous préfet dem naa ba ci man boo leen xoolee di ngeen dem vérifier euh, dans département de Guédiawaye les délégués de quartier Mame mu Gaye mi ngi sur la liste man ak sama enseignant chercheur bële ñun ñoo doon demoon bi ko dox mais daf ñu woon carrément nañu moom ci côté béy di bala nekk parce que ñun duñu ay xale te xam nañu lan mooy quartier xam nañ luy politique xam nañ lan mooy commune. kon nag ma leen di ñaan béy di ba faalewu leen yëgu leen xamul yéen ay kan ndax amul élégance bëggul commune bi ndax moom day jaawale maire ak parti day jaawale maire ak commune ak këram ak lu mu moom. léegi nag li fi des mooy ñun ci suñu wàllu bopp li ñuy dank fanaanal mooy li ñuy wax fii tey am na leneen loo xam ne moom lañ garder te ci lañ jëm incha allah ñun waa parti Rewmi dinañ mobiliser dinañ taxaw fu mu taxaw lu mu ko jaral ñun ko jaral li ñuy toog fii nag ay responsable lañ ñee ku si nekk yaa ngi am sa baas sa biir kër mm-hmm. am yaa ngi sa baas sa quartier bés bu yàlla defee ñu war a liggéey wala ñu woote bu boobaa di ngeen xam ne leneen parti Rewmi mi ngi exister bel et bien ici à Médina Gounass je vous remercie